إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunaam ba bés pénc dal nañ yàlla boole ci ñooñu ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu taxoo ragal yàlla ndax ci ragal yàlla boobu la ñu mën a amee teranga àdduna ak àllaaxira doomu ndey mbokk jullit ñi comme niñ ko waxee ci aaya bii ñu génn ñu xam ne ñu ngi ci weer boo xam ne moom mooy weer bi bokk ci weer yàlla wormaal tudd li nga xamante ne ni moom mooy rajab yàlla wax ñu ci alquran mu ne nombre weer yi nga xamante ne moom la yàlla reconnaître yàlla nee na douze weer la li mu ngi koy wax ci saar bi nga xamante mooy surtum tawba di aaya bi nga xamante ne mooy aaya trente six yàlla mu ne nombre weer yi nga xamante ne moom la yàlla reconnaître douze weer la douze weer yooyu mu am ci ñeenti weer yoo xamante ne yàlla daf koo wormaal maanaam dafa nekk weer yoo xam ne weer yu sacré la ci yàlla lii nag kañ la tàmbali mu ngi tàmbali bi yàlla bindee asamaan ak suuf depuis yàlla bind asamaan ak suuf yàlla douze weer yi la reconnaître moo tax ci aaya bi stop daf ñuy xamal ni sax yéeféeri ñoom dañu demoon di utal seen bopp ay weer yu sacré ba far sax yokk ci ati ay weer ba jàppee ko lu ëpp douze weer ñu nekk di dundee loolu di dundee loolu ba islaam ñëw ba yonent bi dem ba jour bi nga xamante ne mooy arafat bi mu doon tàggatoowee muy dernière xutbaam boobu bés yi tombe waaye dafa jaxasoo woon waaye ci yàlla bi mu reconnaître nga xam ne moom lañ moom la xamal yonent bi ci alquran ak ñoom tam bi ñu jaxase woon nga xam ne jaxasoo na jaxasoo na ba ba bés yi tombeetul dafa dem ba bi yàlla prescrire tombe ak bi nga xamante ne nii ak ñoom bi ñu jaxase nga xam ne ñoom li ñu jaxase dañoo compter ba ñëw ñu tombe ñu yem comme léeg-léeg da ngay gisee weeru grégorien bi nga xamante ne ñoom ci jant bi lañ koy nattee day dem ba benn instant boo xoolee at bi passé le premier weeru koor dafa tombe loon premier ci weer boobu loolu day dem ba dañuy tombe léeg-léeg bii noonu la demee woon dañu dem ba dañu tombe moo tax yonte bi ci xutbaam boobu mu xamal jullit ne ne yéeféer de ñoom dañu jaxase woon weer yi ba demoon am lu ëpp ci douze weer te yàlla lim ñu prescriral ci weer yi douze weer la waaye tey def na mbir yi tombe na comme tombe na nag ba ñu xam ne tombe na ngal la waaye jullit na ngeen ko commencé di ko noté déjà présent ngeen xam ne nii lay toppantee ci biir douze weer yooyu yonent bi salaa salaam ci xadis abu abu bakar moom moo ñu xamal yan weer mooy weer yi nga xamante ne mooy weer yi sacré mu ne ñett yi dañoo toftale dañoo dend muy bi nga xamante ne mooy zulqaada moo jiitu weeru aj bi topp si zulhijja muy weeru aj bi waaye topp ci li nga xam ne mooy muharram di premier weer ci jullit ñi ñetti weer yi dañoo tegle ay weer yu ñu wormaal la dinañ ci ñëw ñeenteel bi sori leen lool muy bii ñu nekk nii di rajab nga xam ne mooy maamu koor moom buñ ci génnee rek saxabaan la ñuy dugg bu ñu génnee saxabaan dugg ci li nga xam ne mooy ramadaan kon yàlla nii lañ tëralee weer yi weer yi la reconnaître beneen weer buñ jàpp ñun ñoo ko créer suñu bopp waaye yàlla moom lu mu ñu ko xamal ci alquran bi te mu nekk lu leer mooy bi mu bindee asamaan ak suuf ba léegi douze weer yi la reconnaître mooy yi ngay dégg moo tax keroog bi ñuy wax ci xutba bi passé ne ñun suñu cosaan fii Sénégal nekkul ceddo diine la boo xoolee weer bii nii nekk weeru diine ñun moom lañ jàppee woon ba tuddee ko weeru olof te tey mooy weer bii nii nga xam ne moom la yàlla reconnaître kon bu ñu saa bu ñu demee rek dañuy gis ne suñu réew mi nekkul réewu ceddo ñun kay ñoo bëgg nekk ceddo bëgg topp mbiru ceddo waaye réew mi li cosaanam diine islaam la loolu la suñu mag yi nekkoon doon ko dund kon weer yaa ngi noonu bii ñu nekk nii nekk benn ci biir weer yooyu di weeru muharram yàlla daa dañu ciy wax wax boo xam ne wax bu am solo la mu ne bu ngeen ñëwee ci li nga xamante ne nii moom mooy weer yi nga xam ne weeru sacré la da ngeen fexe ba bu leen ci tooñ seen bopp da ngeen fexe ba bu leen ci tooñ li nga xamante ne mooy seen bopp bu leen ci tooñ tamit li nga xamante ne nii moom mooy seen mbokk yàlla moom mënuñu koo tooñ lu waaye def boppam man amila saalihan fali nafsi képp koo xam ne def na lu baax boppam bu defee safaan bi tamit boppam kon boppam lay tooñ nit ki war na éviter ci weer yi mu moytu di tooñ boppam te buñ ne tooñ boppam mooy na ci sori bàkkaar donte nag bàkkaar moom weer yëpp da koy moytu waaye rawatina weer yi bu ñu nee weeru koor yokk leen def lu baax mooy lan mooy loo def lu baax buñ la koy fay du bokk ak buñ la koy fay bu dul weeru koor kon tam weer yi buñ la nee moytu ci son tooñ sa bopp dafay wuute ak yeneen weer yi boo ci tooñee sa bopp donte yeneen weer yëpp kenn du si tooñ boppam dañ ko ci tere bàkkaar moom dafay xaraam ti faaxan waaye weer yi ñu toll nit ki bu ci defee bàkkaar mooy gën a garaaw ci yeneen weer yi kon bu ci nit ki tolloo na gën a moytu li nga xamante ne mooy def bàkkaar comme bàkkaar du ñàkk doomu aadama yëpp dañuy bàkkaar waaye ki gën ci ñuy bàkkaar mooy ki nga xam ne dafay tuub kon weer muharram kii weeru rajab li nga xamante ne nii moom lañ ci mën a jàpp te muy lu wér te yàlla xamal ñu ko moom mooy que ne ci weer yu mu wormal la buñ ci tooñ suñu bopp buñ ci tooñ li nga xamante ne nii moom mooy suñu mbokk yaakaar naa foofu leer na dañuy dox nag ci jamono di gis ñuy indil ay yeneen privilège ci weer bi boo ci wooree sàngam boo ci saraxee sàngam boo ci naafilaa sàngam loolu yëpp amul benn cëslaay ci diine weer bi amul benn différence ak yeneen weer yi loolu ne yàlla moo ko wormaal te yàlla weer bu mu wormaal lu mu ci wax mooy moytu ci def bàkkaar moytu ci tooñ tam li nga xam ne moom mooy sa mbokk lii mooy justifier li nga xamante ne ni moom mooy weer bi weer yi su daan ñëw guerre du ci am xare du ci am xare du ci am boo xoolee zulhijja zulqaada zulhijja muharram ñetti weer yi dañoo toftale zulqaada ci lay nit ki di préparer pour dem aji dugg ci weeru aj bi génn ci aj bi dugg ci li nga xam ne mooy muharram jamono boobu ku doon doxee tànk pour dem aji wala ngay jël bato wala loo mënti jël bu fekkee dafa yéex si biir trois mois yi di nga mën a organiser aj dem ak ñëw te kenn du la dogaale ci yoon bi kenn du xeex ak yow loi la bu ñu tegoon ñoom yéeféeri ñu xam ko jullit ñi xam ko ba weer yi bu ñëwee kenn du ci xare bañ na ba xeej li ñu doon xeexee sax seen lance yi ñu doon xeexee sax weñ bi nga xam ne mooy jam dañ koy tekk ci bant bi teg nee pour wane ne ñu ngi ci trêve xeex du am kon weer la boo xam ne day continuer ba léegi yàlla di ko wormaal ba àdduna di tukki yàlla di ko wormaal képp ko génération boo xam ne tombé na ci mu ngi ci biir na moytu di tooñ na moytu di xeex xeex bi yàlla di wax sax yow ak yéeféeri la tere massa kon yow ak sa mbokk jullit kon lépp loo xamante ne dina provoqué yow ak sa mbokk jullit ngeen di xeex di turante deret ba lu nekk ngeen koy def na ngeen ko éviter ci li nga xamante ne nii moom mooy weer bi ñi nga xamante ne nag ñoom daanaka diine ñoru leen wala dañ nekk ay franc-maçon wala nangam da ngay gis weer yi yàlla wormaal ñoom contraire bi lañ ciy bëgg def mooy comme li yàlla wax ci aaya bi si topp dañuy jël benn weer ne bii moo bii moo bii bii la ñu wormaal jël weer bi si topp ne wormaaluñ ko lu leen neex lañ ciy def di ko toppante noonu ba dem ba ñu ëppal weer yi nga xamante ne moom moo am ci ati kon li nga xamante ne ni yàlla wax na ko nañ ko bàyyi xel te xam ne loolu mooy liy dëgg te ñu moytandiku li nga xamante ne moom mooy tooñ suñu bopp waaye moytandiku tooñ suñu morom lépp loo xam ne day jur tuurante deret lépp loo xam ne dafay jur li nga xamante ne mooy waro nañ ko moytu ci li nga xamante ne moom mooy weer bi aquli qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والقرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ñu xool aaya bi tamit yàlla ba léegi muy wax ci weer yi nga xam ne weer yi mu warmaal la bi ñu njëkk jàng gis nga mu ngi ko jeexalee ci ñi ragal yàlla bii tamit mu ngi ko jeexalee ci li nga xamante ne mooy ñi ragal yàlla ñu xam ne yàlla mu ngi ànd ak ñi ragal yàlla doomu nday mbokk jullit ñi ragal yàlla rek moom moo wóor moo tax boo xoolee xutba yi ñu ubbi yëpp dañuy ubbee ñetti aay yi nga xamante ne yëpp ci ragal yàlla lay wax ndax loolu lay nit ki di amee teranga àdduna ak àllaaxira da nga xamante ne yàlla mu ngi ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ragal kon suñu diine nekkul diine boo xamante ne nit ki dafay taxaw rek def lu ko neex lépp yàlla daf ko ko tëralal warul nekk transgresseur bay transgré transgressé aaya yàlla yi dafa war a taxaw kéemtalaay kàttanam li ko yàlla sant ak nu mu ko santee mu taxaw ci defee ko noonu yàlla mu ñuy xamal mu ne achahrul xaraami bi chahril xaraam weer yi nga xamante ne yàlla daf leen wormal ak weer yi nga xam ne yàlla daf leen wormal wax bi dafa laaj dégg-dégg mooy ci li ñu bëgg ñëw te jàngoon nañ ko ci aaya bu njëkk bi ci xutba bu njëkk taxawaay bu njëkk bi fii day firi œil pour œil waaye dent pour dent buñ la tooñee fayul bu fekkente ne fayu moo fi sës weer yi yàlla daf cee tere xeex daf cee tere tooñ waaye bu yéeféer bi jugee fee nag moom transgressé aaya yàlla yi parce que moom transgresseur la yàlla la njëkk a weddi ñëw fekk la fi nga nekk mu tooñ la song la bëgg xeex ak yow fii nag moom da ngay xeex ak moom fii moom da ngay xeex ak moom donte nag ñu ngi ci weeri yàlla warmaal donte yàlla bugg ci tuur deret da ngay xeex ak moom parce que lan moo tax mooy moom moo ñëw fekk la ci weer bi song la tey islam moom mayu la fenn foo xamante ne da lay bàyyi jullit bi ñëw nga yéeféer bi ñëw nga croiser say bras rek mu day def lu lu ko neex déedéet jullit fu muy nekk dafa war a ne war a ne moom jullit la ci kàddoom ci doxalinam ci léppam dafa war a taxaw wane ne man mi jullit laa nekk ma koo xam ne ku faible la ba ci ngëm sax yàlla ki nga xamante ne mooy ki am ngëm te dëgër moo gënal yàlla ki am ngëm te faible moo tax jullit warul nekk koo xam ne ku yaacaaral rek lay nekk dafa war muy tàggat di tàggat yaramam di def sport am li nga xamante ne mooy kattan kooku mooy ki gënal yàlla ki nga xamante ne dafa néew doole kon jullit bi na bàyyi xel ci loolu warul nekk koo xamante ne yéeféer bi fu mu jugee fee rek dafay ñëw daal di koy faagaagal ni mu ko bëggee faagaagal moom moo tax yàlla wax ne na ngeen xeex ak ñi nga xamante ne moom mooy yéeféer yi comme ni nga xamante ne noonu la ñuy xeex ak yéen waqaatilu waqaatilu mushrikina kaafa kama yuqaatilunakum kaafa mu xamal ne wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin yàlla de mu ngi ànd ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñi ragal yàlla kon nit ki ragal yàlla lay mën a am mën a taxaw taxawaayu jullit dëggantaan kon nit ki ragal yàlla lay am mën a taxaw ba yéeféer du jóge fee ñëw yàpp ko saxaaba yi meloon nañu melokaan yoo xamante ne bu ñu digaan yéeféer ne ñu ngi ñëw un mois duñ nelaw parce que yàlla moo leen moo moo defoon ci ñoom ragal yàlla su ko defee leneen dudul yàlla daf leen mujjee ragal nit ki su ragalee yàlla leneen lu dul yàlla daf lay ragal dara du ñëw yëpp la kon bu ñu demee ba nekk si suñu jamono di dund noo xamante ne nii nee nañu farmaso yi ñoom ñoo ŋànk àdduna di dugg suñu biir duñu tëral suñu àdduna nuñ koy doxee te nekk ay julit ñun war nañu xolaat suñu bopp en tant que ay julit ñuy tànn sax ay gouvernement yoo xam ne ñoom lay neex ñii ñoo leen di neex pour nañ ñu jiite loolu ñëpp xam nañ ko ñun julit ñi ñu yàccaaral ba nangu loolu kon lan moo ñu manqué ragal yàlla moo ñu manqué bu ñu amee ragal yàlla dëggantaan yéeféer bi buñ ko diggee ne ñu ngi ñëw du du nelaw un mois du nelaw dañuy bàyyi xel bu baax a baax te duñ ñëw rek fekk fu ñu toog rek duñu song rawatina duñ tëralal suñuy loi bopp nii ngeen def wala nii ngeen def wala nii ngeen def tey jafe-jafe yi ñu dund nii yëpp dara warulu ko loolu jullit ñu yàccaaral bëri lool waaye comme furit moo tax yoon saa salaam waxoon ko ci benn xadis ne islam nu mu tàmbale woon tumuranke ci tumuranke lay mujjee saxaaba yi loolu jaaxal leen lool ba ñu posé yoon saa salaam sax ne xanaa dañuy néew du ñu bëri yonent bi ne leen déedéet bal dañuy bëri waaye dañuy not doo bëri boo xam ne comme furit furit bi nga xamante ne boo ataayaa moom ngay fuural mu nekk ci kaw da nga koy rafetalal nii rek kaas bi waaye su doo ko naan contenu bi ngay naan jullit ñi nekkatuñu contenu boobu te bëri nañu lool mais comme furit boobu kon nañu am xamaat suñu bopp en tant que jullit nañu xamaat suñu bopp ci lépp loo xamante ne ni bu ñu la fa fekkee xam ne kii jullit la suñu la fekkee ca bérébu liggéeykaay bu ñu la xoolee rek nañu xam ne kii jullit la ci nan lañ koy xamee mooy comportement bi ngay am ci béréb bi ngay liggéeyee comportement bi ngay am ci respecter say heure de travail comportement bi ngay am ci liggéey bi nga defee ko lu jaar yoon comportement bi ngay am ci ki la séq ki nga séqal liggéey bi du am fenn fu mu lay blâmer di xeeb sa diine buñ nee xare du jël jaase rek dem di xare ji nit ki dafay xare selon ci bakkenam yar ko ba nga xamante ne nii lépp lu neex yàlla daf ciy nekk heure bi laa sineen teg diw heure bi laa sineen teg moom wàcc du ma ci jalgati benn bu ko defee li mu lay fay nekk loo xamante ne boo ko lekkee ak xel bu dal nga koy lekkee waaye lépp loo jalgati ci liggéey bi yow mal xiyaam boo ñëwee ñu fay la ko nga lekk ko di nga ko goqiwaat lépp loo xam ne nit ki def na ko te fekk waruloo mu def ko yow mal xiyaam bu ñëwee yàlla dina ko tegaral mu te leer moo xam njiit bi la moo xam ñu jiite la moo xam ñun ñi ñu jiite képp koo xam ne mu ngi def loo xam ne warul bés a ngi si biir bés di nga jàkkaarloog sa borom nga goxiwaat lépp li nga xam ne jëloon nga ko te balaa foofu sax fii lay leeree képp koo xam ne dundalee na yaramam ci loo xamante ne nii dafa xaraam fii la koy yàlla di commencé wan benn wérgu yaram du ko am day jékki-jékki am feebar yoo xam ne mosu woon xalaat sax ne feebar yi dina ko mës a dal te fekk lan moo waral loolu mooy safara bi mu doon dugal ci biir biiram di ko yaree li nga xam ne mooy ay njabootam kon julit bi nag mooy tandiku lépp loo xamante ne nii buñ ko xoolee dañ ko ciy xeeb rawatina ci weer yi ñu nekk ñu ngi ci rajab incha allah suñu xutba yi ci nii lay continuer am na aaya boo xamante sax yàlla mu ngi woo ñu gëm wax ci wàllu tooñ fayu waaye dañ koy réserver ci li nga xam ne mooy aaya yi ñuy préparer koor ndax daf ci bokk xam naa fi ak àjjuma biir ñëw incha allah suñu xutba ci yooyu lay dem préparer li nga xam ne mooy weeru koor ndax yàlla moo ñu ko préparer yàlla moo ñu wax farataal na suñu weeru koor ci suratul baqara muy benn aaya boo xam ne yaa ayyuhal lazina amanu la woote mu am juróom benn aaya yoo xam ne daf koo jiital mu jiitu aaya boobu amaat yeneen juróom benn yoo xam ne daf koo toftale mu toppaat ci li nga xamante ne mooy aaya mooy aaya aaya bi nga xam ne moom la farataalee koor te treize aaya yooyu yëpp yàlla daf cee woote yii yaa ayyuhan naas la woote yii yaa ayyuhal lazina amanu la woote am ay digle yu mu ci def am ay tere yu mu ci def te digle yooyu ak tere yooyu buñ ko xamee ci la ñuy mën a dugg ci weeru koor bu baax buñ ci génnee tamit ci la ñuy mën a taxawee taxawaayu julit dëggantaan boo xam ne fees na del ak ngëm incha allah xutba yi di ñëw ba incha allah ñuy dugg ci weeru koor gi ci aaya yooyu la ñuy jël di ko seppi ñaar par ñaar wala benn par benn yaatal ko ci xutba bi su ko defee ñu préparé koor gi dugg ci ak jàmm yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko ak jàmm ñu fekkee weeru koor ndax loolu lu rëy la jullit bi amul lu gën a rëy fekkee weeru koor amul lu gën a rëy fekkee weeru koor tey bu ma bu ma bu ma juddoondoo woon nag Abu Ndiaye ñun ñaar ñu juddoondoo bokk même date ñu ñu jaamandoo yàlla lépp lu ñuy defandoo si jaamu yàlla ñoo koy defandoo tolloo ci lépp man ma njëkk ko génn àdduna moom mu fekkee benn weeru koor man bu ma fekkeewul yow man xam bu ñu dajee du ma ko séen ay poussièram laay séen ndax daf may raw ci lu ma rawee mooy man dama ko njëkk génn àdduna ci weeru koor moom bi mu ma rawee moom benn weeru koor kon weeru koor gi nit ki da ciy rawee nii moroomam kon dañuy ñaan yàlla ñu may ñu fekke ko ak jàmm su ko defee ñu préparé ko buñ ciy dugg tam ñu duggee ci ak ngëm comme ni ñu ko yàlla bëggee yaakaar ci fayum yàlla yàlla nañu ko yàlla defaral rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lakunanna min alxaasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin qumu ila salatikum yarhamukum allah